pour wax na lépp dañu bokk Sénégal ngeen am fi njariñ trop yor njaboot di dund ci lii ñu yor ay événement muy contenu kon dañu war a def benn synergie synergie boobu moo ñuy permettre ñu atteindre suñu ay objectifs mu waxaat benn mbir bu am solo man PAF su ma leen ne damay accréditer ay deux cent wala trois cent sites ça c'est pas possible et je n'y même je pense même pas aujourd'hui dans l'ordre normal des choses li gën a jafe am ngeen ko muy une structuration de votre de vous êtes deux war ngeen mën a toog waxtaan am des mandataires d'une manière sélective ñu seet ci reporter yi tant de structures yi ñu ci war a accrédité au niveau des techniciens tant de structures yi nga xam ni war nañ leen mën a accrédité ñu discuter ci emplacement bi ak installation yi ba doo leen ma jéppi duma leen jéppi man loolu mooy objectif objectifu daje bi te it nous assez matures ki dem ba jël ay millions wala des centaines de mille jënd appareil bi jaral ko bàyyi këram suba ba ngoon di wër mais c'est parce que vous êtes armé de courage d'ingéniosité d'engagement et de volonté pour réussir mais est-ce que cela veut dire que réussir aussi vos objectifs c'est déranger non donc président dama lay gërëm di la sant ci ndaje mi parce que biñ ko waxtaanee rafetlu nga ko trop nga tàllal ma loxo ma tàllal la loxo moo waral daje bi kon léegi affaire bi neex na li may ñaan mooy président Bour man awma lu ma leen di xaj comme ni nga ko waxee à l'entame de vos propos man Sénégal moo ma ñor gis nga réew mi c'est pas pour le plaisir de vos beaux yeux moi je n'ai plus rien à amatuma lu may euh, nan laa ko mën a waxee loo xam ni mën naa ko prouver ci réew mi déedéet du ci sport du ci agriculture du ci jeunesse du ci développement lii benn pàcc la ci suma life xëy na yàlla moo ñu nattu ci lii mais li ma bëgg rek mooy dañuy dem ci bis boo xam ni du bis bu yomb bisu téll téll la bisu rajax-rajax la te it dama bëgg ñu rafetal nekkin wi tey mënoon naa ni dama ci ànd ak ITV ak 2 tv rek yam ci je suis assez outillé pour faire ma communication muy ci mbër yi di ci sama ay relation yi ci réseau yi mais dama leen a fekk ci biir ngeen ci mbir mbir mi ngeen di sama ay doomi ndey ñi fekk ma ci biir mbir mi ñu ànd di bokkandoo bis yu samedi dimanche ak lépp lu mën a xew kon il faut que ñu bokk mais nañ leen ko rafetal d'une manière responsable <coughs> je pense que la balle est dans votre camp maintenant mooy président je suis open à une proposition au niveau des accréditations bien que c'est pas le premier point nga ni ma El Hadji Pape Abdou je propose que ci reporter lambi yi ñu accrédité temps techniciens yi ñu accrédité temps ñu waxtaan ci maag yow ba juboo et vous verserez le contenu de nos conclusions à vos membres que personne ne m'appelle individuellement donc je reviens sur mes propos que personne ne m'appelle individuellement pour me parler d'accréditation. J'espère que ça, c'est la première décision prise. Le seul interlocuteur que j'aurai en marge de cet événement qui sera organisé le 5 décembre 2021, Inch'Allah Rabbi, le seul interlocuteur que j'aurai avec sur les réseaux sociaux site web nangam nangam ak yooyu buur géwal mooy suma interlocuteur je pèse bien mes mots sur les réseaux internet c'est buur géwal la ma seq ñeneen ñi nga xam ni nag mooy presse écrite di presse bi nga xam ni ñoom laa signé sama ay événement muy ITV ak 2STV loolu suma diggante ak moom la defe naa ne boobu leer na président et j'espère que vous validez ma proposition kon gars yi déggoon nañ ko alhamdulilahi rabbil alamin leneen li may ñaan mooy que ni président ba samedi bii ci mujj je vous prends à témoin yéen ñëpp y de ces comportements yi nga xam ni bu ñu amee jafe-jafe ci làmb comportement yooyu moo ko waral bi Eumeu Sène dugg see ci làmb ji nan la gaa yi def président ah non da ngay wax ci kaw président njaboot gi la daw topp ko te chaque jour ñu ñu jooytu loolu mooy benn mbër deux cent deux cent médias mun ñu ko topp voilà ça crée une désorganisation ça crée de l'insécurité alors président loolu aussi dañu ciy xaar nga jouer ci benn rôle sensibilisation ñu respecter consignes yi nga xam ni téye nañu ko fa arrêté nañu ko fa mais boo xoolee Eumeu Sène dafa dugg si rek lu waay doon def ba ko di dàq mel ni kuy dàq lapin alors je pense que yooyu ay ala yàlla ci suñu ay collaboration nañ leen rafetal nekkin wi moo ñuy gën a jox personnalité gis nga li nga xam ni moo lay dundal muy affaire bi nu mu tudd caméra bi di téléphone bi ngay filmer nangam ak nangam boo demee ba toog teg ko toog ci say njaboot nga toog xam ni lii moo doon mooy sa arme pour que nga mën a am indi loo indi sa kër da ngay xool lii ni nga ci nekkee nan la ak naka la Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas en classe ni en amphithéâtre pour se donner des leçons. Non. C'est à partir des constants, euh, des, des constats que ci la ñuy évoquer sujet bi yéen ñëpp ñooy nekkandoo chaque samedi chaque dimanche ak yeneen événement bu amee mais nañ leen xoolaat mbir mi honorez votre président parce que bu mettee moom ngeen di yónni ci ñun moom la ñuy gis parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde c'est pas possible on ne peut pas discuter avec tout le monde c'est pas possible yéen a toog ba mûrir ni vous devrez quand même agir en groupement ou bien en association kon dafay jaadu ñi ngeen jiital ngeen honoré leen nan ngeen leen di honoré seet liy yàq ak liy ternir image par vos biais de vos actions ngeen moytu ko te du man rek maa ko gis nañu leen rafetal nekkin wi rafetal ànd bi parce que nekkin bu ñaawee rek ànd day ñaaw maag yow bu ñu bokkee bool bi nii tey jii nii war a lekk laax nga jékki-jékki comme li ñu ko doon defee jamono sëlëm kenn wala xam nga def yenn affaires yi mais suba bu ñu pour ñu mën a toogaat day jafe grosso modo loolu mooy équation wu waa làmb man nag promoteur laa di président wu promoteur yi Fallou mu ngi ñëw yëkki mbay yëkki ni mu ngi nii bissu travail la leen di dafa metti pour wan leen rek cër bi ma leen jox bis bi seen président bi ko jàpp biss bi ak waxtu bi kii moo ko jàpp dama ko ne seetal bu la arrangé nga wax ma ma convoqué ci man danaa wut hôtel boo xam ni di nga fa dugg di nga ne ci jàmm doo ñàkk dara du la sonal nga toog ñu waxtaan waaye nag lañ fay jële na doon tënku gor je vous aime bien ça veut pas dire que je vous laisse tout dañu fas yéene ànd ci benn événement nañ leen ci ànd ànd bu set incha allahu rabbi loolu dafa may dugal ci organisation làmb bi làmb bi dañuy jël police dañuy jël gendarmerie bien que mosu fa am parce que boo leen seetloo ba ba ci làmb Fallou njaay bu mujj bi euh, porté nañu préjudice ñi nga xam ni sax ñëwuñu ci làmb ba EDK ba ba biir ba arène nationale oto mënta circuler ci rek suñu ay bëgg bopp bëgg-bëggu bopp ak suñu ay comportement bopp dafa naa ni Babacar bii sax fekk na ma ci embouteillage bi mais président affaire bi metti na de ma ne ko ah xam nga ñun li ñu yor moom yàllaa ñu natt ñii ñu ngi nuy gërëm mais ñii ñu ngi nuy ñaan yàlla parce que li mu indi moo bari waxuma la nag fu Siteu war a jóge dem làmb waxatuma la ci dara mu ni la damay dox dem làmb ja doxu Siteu caaro yi jëm Pikine ah loolu àdduna bu tukki la alors dafay jaadu ñun ñu waxtaan ci suñu biir xool quelle est la conduite à tenir neex na trop maa am buzz maa yor noo leen ko sax euh, affaire bi bi ngay njëkk a jot am na leen ko tuddee maa yor scope bi scope bi maa ko yor nangam mais d'accord mais na rafet. mais si tënne bërëb kii këf téléphone bi fàtte lañu ñu waxtaane woon ci hôtel Colonia ba du wàllu góor président président danañu ànd ci arène bi bis bi may def sama visite de sécurité damay ànd ak yow on fera des délimitations pour toutes les structures man nag damay dem ci làmb boo xam ne yombul ci man damay jël sama matuwaay yépp du ma seet lu neex ma sàmbaak lu neex ma paate reetaan beeg caaxaan bi yëpp fii la yam de dama leen di wax lu leer danaa ànd ak moom ba ñu définir ne président fii la gaa yi war a toog fii la ñu war a defar ba nga ni ma gongo ma ni la lan la laaj nga ni ma lii lay laaj ma jël ko defar ko teg ko ci sa loxo leneen lu ci beneen reporter dugg ça ne m'engage nullement ni de près ni de loin j'espère que loolu mën nañ ko valider salaamaaleykum <coughs> euh, bu ñu demee ci programme incha allah fii ak euh, semaine bi di jeex dinaa def une coordination j'ai même les éléments mais il faut que ñu make sure ba lu ñuy wax du am benn mbir boo xam ne dina ko déplacer tuuti danañ leen wax ngeen dem jëli Papa Sow danaa ko wax mu ubbil leen buntam entraînement parce que nag mënul di wuyu euh, reporter bu nekk c'est pas possible je vais organiser benn rencontre spéciale boo xam ni dana leen recevoir ngeen daje ak moom waxtaan ak moom bu leen neexee sax ñu yokk ci boo leen bëggee yendu ak moom affaire bi mu rafet danañ ko organiser ak Siteu incha allahu rabbi ngeen nekk ak moom bu ñëwee ngeen def li ngeen war a def affaire bi rafet. am na benn dernier face à face boo xam ni danañ ko def ak ñoom aussi bu ñu paree ci loolu li koy tëj triplex lay doon ak ITV 2S Papa Sow day toog këram. Siteu toog këram man ma dem ci benn bërëb maag parrain bi wala ak sama ay nit ah ñu waxtaan ak àdduna loolu mooy ñett ñetti programme yi nga xam ni moom lañu ñu fas yéene déroulé man sax dama jëloon décision pour wax leen dëgg rek dootuma dajaliti Siteu ak Papa Sow coow li doy na sonn naa ci doy na sëkk man kañ fu mu li ñu waxoon rek en route

démb nee na da doon sport waaye dañu jékki-jékki rek gis bi ci suuf waaw donc loolu moo doon xorom si moo doon sarax si. léegi pour le bi damay ñëw. waaw mu ngi ñëw waaw. PPV bi mooy mujj parce que da nga ko évoqué lan la. c'est euh, beneen bi ci des mooy sécurité bi euh, gënuma leen xam ci réew mi ngeen dëkk dañuy dem ci làmb boo xam ni metti na metti goo xam ni yéen boo leen tëddee yéen a ngi nelaw mais man nelawatuma. da ngeen wax baax. moo ñu tax a fas yéene jël lu mu dee dee trois cent policiers trois cent gendarmes police ci biir gendarme yi ci biti ak fas parce que boo leen xoolee pour tour stade bi ak buntu yi niñ ciy duggee parfois coonoy lamb yëpp ci entrée yi la ci ñi mënta dugg buur jël otoom yàpp ci ñetti nit ni day dugg buñ dikkee ñu war a contrôler ñooñu ana seen passe non buur laa àndal maa koy téel ordinateur bi maa yor jaag bi war a def direct bi yooyu yëpp gaynde nañ leen ko bàyyi teg suuf ngeen yombal seen bopp liggéey bi mu yomb parce que man Alaaji Abdou wax naa ko bërki démb benn président bu newoon ci làmb ji mu ñëw mu ni ma policiers yi nangam ak nangam ma ni ko promoteur bi bu xasee ba fay pa fay alkaat yi la commissaire ba di décider ak ay nitam man awma ci droit wax ci mm-hmm. kon nañ leen yombalante liggéey bi nañu leen bàyyi bàyyi aussi di paasante badge yi am na ci waa presse bi ñoo xam ne danga leen di jox badge yi ba pare ñu wëlbatiku jëlaat badge yi dem ci grillage yi joxe ko wala yóbbante ko nit mu jox ko Cheikh Ndiaye ma ne Cheikh Ndiaye ñëw dugg ci ñëw toog fekk ñun xam nañu lépp dafa fekk ni asgor kenn du ko toroxal waaye nag ci kaw mu gore bu dee dégg ngeen wolof nit mooy sagal boppam nit mooy suturaal boppam mais nga ñëw ne dañ lay jox accréditation ñu jël jox sa président accréditation ñu jox la sa bos nga dem jël ak sa xarit ak yëpp parce que seen benn waaye dóor na leen benn kóol nangam ak nangam am kenn koo leen yónni jox ko ko ku dem sol ko daal di ñëw amul njëriñ c'est du vol tubaab ko tudde vol wolof di ko tudde sàcc la waaw bu demee nag ci contexte bi ñu liggéey gore la ak mbaadoo la ak ñàkk kóllëre donc ñu moytu yu sew yooyu sécurité intérieure bi xaadim njaay mii ku ko xam-xam ni mook alaaji Pape Abdou Fall benn kii dama leen di wax sama diggante ak moom du làmb kii yaayam mu ngi ci kër dëgg maa ngi fii ci àdduna moom ma ko dénkoon avant muy làqu ak mon ami mon frère Pape Mayel jóg ñoo tax kii ma jàpp lu ma am danaa ko bokk ak moom lu mu am danaa ko bokk ak moom fu mu xewlee dana ma gis ci wetam fu ma xewle it fu mu nekk danaa ko woo mu ñëw taxaw sama wet yàlla nag da koo dimbali mu ne làmb di liggéey digganteem ak askan wi rafet ba mu am ci nit ñu baax tey mu créer société de sécurité ñu jox ko aéroport mu yor ay business yu bari moom laa fas yéene jël ci sécurité bi nga xam ni mooy sécurité locale bi incha allahu rabbi nit ku dëggul taalibey xaadim rasul bi bu ñu jàllee ci loolu làmb bi buur wax nga fi lu am solo muy problème mu pay-per-view pay-per-view loo xam ni lu ñu dab la ci làmb daf nu dab force et de reconnaître que dab nañu ñu ngi ciy liggéey mais du parti yépp a ko maîtriser Euh, am na lu ci xew évoqué nga ko yàlla xam na ni tey laa koy door a yëg man du fenal mbindeef buy dox ci suuf parce que kenn yorul suma dépense <coughs> ah wax nga incha allahu rabbi ñi ñu ko seqal danañu toog ak ñoom waxtaan ba loolu nga xam ni mooy seen préoccupation ñu waxtaane ko mu dañ loolu man alaaji Abdou Fall bu ma la nee xaw ma làmb keneen mais sama làmb saafara wu sama làmb mënuma leen ni doo leen def direct làmb gi jeex mais man awma droit bloquer seen instrument de travail jusqu'à minuit pourquoi et sur quelle base defuma close boobu

dama ne ci yeneen i activité lii nii maa koy door yëg nii Cheikh na Cheikh Saad bu nag laa lay waxal ki ma ko seqal danaa ci waxtaan ak moom ba du loru te dooleen loru loolu defe naa ni bu ma leen ko waxee war na leen mën a doy du dëgg président man nag loolu laa amoon ci lu may wax entrée yi entrée yi yomb lañu def def Cité Papa Sow euh, jaune et vert 3000 francs la rouge bi 5000 francs la rouge annexe bi 10 000 francs VIP bi ñu def ko 25 000 francs donc euh, à travers aussi notre rencontre je tiens à saluer voire même remercier encore mes partenaires xëy na ñenn ñi sax bu ma leen remercier sama bopp laa remercier parce que dama ci bokk muy la banque agricole du Sénégal muy banque boo xam ni damay wax ni développement ak askanu Sénégal la fi nekkal ku nekk war nga fa mën a dem ubbi compte ci mbay mi lay yëngu di accompagner jeunesse bi di jàppale askan wi te mooy seule banque nationale du Sénégal kon damay invité sénégalais yëpp ñu daal di ciy dem man nag dama bokk ñoom it ñu am benn solution bu tudd agricash agricash moyen la comme yeneen solution yi nga xam ne day permettre ñuy jënd di fay di denc ah di maye di leble kon dama leen di invité encore ngeen télécharger application Agricash dina leen permettre ngeen mën a jënd seen billet làmb foofu danaa fa taxaw man sama benn billet jaayuñu ko avant làmb billet yëpp dañ koy jaay ci guichet bi donc képp koo xam ni gis nga billet avant làmb PAF production jàppal ni c'est pas un billet valable quelle que soit la nature du billet quelle que soit le degré de responsabilité de la personne qui vous l'a vendu. Je ne suis engagé ni de près ni de loin dans cette affaire-là. J'en rajoute que, à part la Banque agricole du Sénégal, il y a Jojo mën ngeen dem ne ñëpp dem jëndi fa ay meuble la fa jóge yëpp Amérique la jóge waaw dara nekku fa cere bien que cere lu baax la ci réew mi waaw di di gërëm aussi hôtel bii ñu dalal hôtel Colonia hôtel bi aussi sénégalais bu am jom bu am fulla bu am fayda moo ko moom te yoru ci it benn c'est un ami Traoré Paté Baldé suma gars yi jàpp leen foofu la rien n'est impossible waaw gëm rek fi nga tegu mm-hmm. ñi fi ñëw ñëpp ñu leen di jox ñuy tabax hôtel gënuñu capable les sénégalais les sénégalais yi gën a gëm seen bopp surtout la jeunesse gëm leen seen bopp affaire bi yéen ñëpp ñeen ñi ma wërale caméra yëpp excepté les deux grandes télévisions boo leen gëmul woon seen bopp waleen leen amuloon engagement détermination tey jii nii caméra yi yëpp jël ngeen ko dugal ko ci géej parce que li ngeen yor ay millions lay jaar dem ngeen ba toog wéet ak seen bopp sangu tëj bunt sangu jaganaayoo sa loxo xam ne lii njariñ la moo tax seule la persévérance paye si vous n'étiez par reconnu je dis bien si vous n'étiez pas reconnu vous lee pas mériter d'être rencontré am déet président kon wéy bi ngeen jël mooy wéy bu baax bi waaye yor bu baax bi aussi dafay induire que ñu ut benn doxalin bu rafet bu baax boo xam ni day gën a renforcer crédibilité wu structure bi nga xam ni moom ngay gouverner loolu daf ci am solo image dafa am solo xam na am na ñoo xam ne bu ñu génnee fii d'accord tu tu peux bel et bien être dans une bagnole wala nga ñëw solo ba rafet mais boo waxee gars yi ne cim am na ñoo xam ne mobilette la ñuy yor mais bu ñu rombee ñu ne gor saa ngi nii yàllaa koy def ci nit. kon gën leen a yokk la crédibilité de vos de vos institutions les institutions que vous parce que institution ngeen yor société ngeen yor moo tax ngeen di am dépense ci kër ga. kon rafetal leen seen àndandoo rafet leen seen rafetal leen seen nekkin. rafetal leen seen teewaay ci ndaje yi ngeen fexe ba bu jëppi kenn mais buleen leen kenn jëppi looloo waral suñu ndaje bii defe naa ni j'ai été bien compris ya a aussi ma sœur directrice générale de ESEF ku xam Khady Diop Sow xam ni moom moom e entreprise Serigne Fallou nettoyage parcelle la dëkk c'est ma famille dañ ci bokk jigéen la mu ngi def lu rafet lu baax di raxas hôpital yi di raxas jumaa yi def lu baax kon dañuy ñaan yàlla jàppale ko ba ESF gën pick up dem ci kaw j'en profite aussi pour euh, remercier mon ami mon frère Yougo Sow qui le directeur général de la Socosim Socosim xam ngeen moo tabax Sénégal ku fi ubbi ba pare rek ku fi ubbi léegi rek après la rek waaye li mu yor mooy bu baax bi li mu yor mooy bu baax bi parce que ndakaaru démb ba léegi moo moo fi ne waaw kon yàlla na ko yàlla jàppale waxuma sax suma ay relation personnel ak moom mais ni muy jàppalee làmb di jàppale sëñ Modou Niang di jàppale promoteur yi Gaston Thialis ñeneen ak ñeneen mi tout ça c'est à saluer c'est pas parce que jàppale woo Abdou Fall wala jàppale baba Babacar Ka rek dañ la war a kii non il faut voir euh, le socle le socle c'est-à-dire la euh, le label lamb nañu jàppale ñiy jàppale lamb parce que nag xam nga lamb yàlla dafa def ñu bàyyi ko ci suñu loxo tey am na ñu bëri ñoo xam ni bu ñu sañoon lamb faatu. làmb daanu moi j'ai toujours dit que ni xëy na xëy na ma pare ci Siteu Papa Sow mais ay jamono dama ne làmb du daanu alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bi ñu làmb du daanu man rek kott dong kese ma fi yanu làmb ji di fay te mësuma ko non non je vais wóor na yàlla ak Cheikh na Cheikh Saad bu uldu Cheikh Mouhamad Fada uldu Maamin musuma ko doxee musuma ko man maa bëgg defi làmb musuma sax xalaat ni woon ni dinaa ci dugal cinq millions yi mot mais dem naa ci lamb ba fay ci cent et quelques million fay naa ci quatre vingt million fay naa ci lu ne te amul kuy taxaw sama buntu kër ni yoreel naa la un franc mieux toutes ces structure la yi fi jot a jaar dimbali promoteurs yu mag yëpp mësuma ci xam buntu biiru ma sàmba ma paate nu mu mel kon sant yàlla loolu sant yàlla ba mu ma dimbalee ci challenge boobu parce que am na benn temps boo xam ni bu ñu wàccoon tuuti rek mu am lu mu gaa yi am ndam ci ñun mais alhamdulillahi rabbil alamin qu'on l'a très tôt compris ba tey mu permettraat ñu làmb jëlaat benn élan mais comment vous allez réaliser voire même percevoir ñu ni làmb day daanu or que les travaux de l'arène nationale sont engagés mais attends c'est un c'est un déséquilibre amul mais am na fii man awma benn intérêt tëgg Modou Lo Gris Bordeaux lu may indil Modou Lo Lac de Guiers ay coono Siteu Gouye Gui Gouye euh, Gui Boy Niang booy ñaa Garga mais fii lu ne def nañ ko fii on n'a pas à crier haut et fort qu'on a fait ceci qu'on a fait cela seuls les Sénégalais vont juger. non loolu lépp jaar na fii mais li ma bëgg mooy ngeen jàpp tey loolu bañ koy def bis yu mel nii lañu bëggoon ñu dem ba une émergence xam nga développement bi ñëw ngeen ñëw bokk. am ci seen loolu ni yóbbu su ko defee ñun ñu rocc ku ndànk nag dem dugg ci leneen bi mais alhamdulilahi rabbil alamin je pense que loolu laa amoon ci lu ma lay wax gërëm leen sant leen di jox alaaji xaadim njaay mii nag kàddu mu ñëw fas yéene waxtaan ak yéen tuuti suma xarit la suma rakk la gor la ciment la benn yoon lay tooy te it ku gëm la man kenn yorul suma kër kenn feesul sama bët du dëkk su ma la nee kii gor la rek gor la man daal li tax ma woo leen wax naa leen ko Siteu Papa Sow le 5 décembre drapeau Mame Boye Diao c'est un ami un frère koo xam ni ba ñuy gone la ba léegi muy responsable politique APR Kolda di directeur des domaines bisam sama bis la buñ ci yàlla yóbboole jàmm ak salaam boo ma gisee doo leen ma xàmme parce que ni ma ci fas yéene taxawee sama bis la maa ko moom du bisu promoteur bi làmb ji ah, ñoom Fallou Ndiaye ñoom Mbaye Yékini ñoom euh, Assane Ndiaye gars yi ñoo koy organiser man ci leneen ngeen may gis waaw danaa ànd ak yéen nag ba ñu jub ci làmb ji mais bu ñu duggee ba bu ñu ba ci bisu làmb ji damay rocciku joxe lengeey man dem defi leneen parce que sama bis la lu mu jar danaa ko def pour la réussite ma fas yéene ci ànd ak yéen mais it ma bëgg it na ànd bi rafet ngir yàlla wa rasulullaay qu'il y ait pas de traître entre nous gars yéen may dégg qu'il n'y ait pas de traître entre nous traître c'est quoi dañu bàyyi suñu lépp yàlla xam na ni waxtu bi may wax ak maa ngi amaat beneen réunion mooy génn fii fa laa jëm dama ko bàyyi président bàyyi ngeen bàyyi ñëw daje fii on a eu à tirer des conclusions xam ngeen ko xam nañu ko nañ leen ànd ak suñu sago moytu yenn bëgg-bëgg yi ba ñàkkal suñu bopp fayda je pense que le message a été bien compris mënoon naa woo buur mu indi stafam ñu toog suñu bureau wax ko mais damay bañ su boobaa ñu ni yëguma dégg baax wala les conclusions ne m'ont pas été versées et en ce moment-là vous seriez dans votre droit le plus absolu mieux yàgg ngeen di dem ndaje xam naa ni dañ leen di signaloo bu ñuy dem ku ne ñu jox la paas waaye man list bi maa ko soxla man ci sama bopp ba xam ñan laa toogaloon ba bis bu ma gisee ku def naka sudul noonu maa raw FBI nag ci boppam maa ko raw ma wax leen man sama lépp enquête maa defar liste bi ba xam ni bu ëllëgee si y a un fauteur que je souhaiterais pas bu amee bu ma ko téyee ma kon fàttalikul suñu altine ga te dañoo fayoon hôtel ba pour waxtaan ñëpp toog affaire yëpp rafet mu nice donc suma gars yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di jox suma frère Khadim Ndiaye lépp bëgg mu rafet rek bëgg seen business yi pick up bëgg foo leen taxaw ñu respecté leen et puis ngeen gën a professionnaliser affaire bi. gars yi foog ñu commencé sol ay gilet à l'effigie de vos organisations il faut qu'on que ñu xàmme leen tey leen ay gilet yoo leen ko abale non mais c'est vrai il faut qu'on puisse distinguer qui est qui Babacar bàyyi ma waaye il faut qu'on puisse distinguer qui est qui mais bu ñu nee nii kii fait quoi bu ñu nee nii rek kenn këf daw dàq Abdou Fall xaadim ne ko bul jàll mu ni ko maay diw carte baa ngi nii mais non bala mu xam carte baa ngi nii rey na la yàgg na seen maase yooyu ñuy maas bu ñu la ko nee kar mais boo amee kar jaag dee nga bala gaa yi xam ni yaay diw pensez à plus vous professionnaliser pour donner plus de visibilité à vos organisations parce que visibilité boobu mooy permettre boo leen jàkkaarloo policier bi mu xam nan lay taxawee ak yéen ak ban taxawaay lay am ak yéen mais sol sa casquette bu jaune rek ak sa lakos ne man maay leeral mais attends yow looy leeral yow looy leeral yow avant ngay leeral rey nañ la mais regardez les plus grandes guerres fi am problème ci àdduna bi yëpp da ngay gis ni les journalistes bu ñu solee seen gilet wala nangam ak tàngam gars yi ils ont beau tirer ils ont beau faire mais dinga nga gis toujours journaliste bi mu ngi taxaw ci kiy tirer mais kenn du ko effrayer vous devrez quand même vous inspirer de ça si vraiment vous croyez vraiment à votre avenir ah man kañ dama ni man dama seen la non dama ni buur a nii bu bëggee gilet yu ñu leen di jox man PAF production mën naa ko accompagner mu am gilet non je vais vous dire non non. non dama lay wax rek xam nga loolu daf nuy permettre daf nuy permettre que njaaxum du am mais dafa rafet quand tey ñu ni fii tribunaux tribunaux caméraman yi ak yu mel noonu ngeen sol gilet rafet ku nekk sol ko mais on vous doit du respect mais boo mel ni maam sa mbase ñëw taxaw ah bala ñoo xam ne Mamadou Ndiaye la dee na yàgg na. ah non solu leen waa mais bañu ñu nga solu mais demal FIFA demal fu nekk mais carte bi bala nga ko génne dafa war a am lu ko yiir ba pare. kon contribution la de c'est pas une chose que je vous force mais dam leen bëgg a wax ni leen ne. boo leen bëggee sécurité bi respecté leen boo leen bëggee nit ñi jox leen cër xam ne vous vous êtes organisé en professionnel il faut vraiment tenir de votre image comment en essayant d'avoir le minimum de logistique minimum de logistique bi bi ko njëkk a gouverner moom mooy liñ lay xàmmee mooy gilet mën nga sol sa ñetti abdu sol sa gilet mën nga sol sa costume teg ci gilet parce que boo jàkkaarloog gémi bi bala ngaa génn am na gémi yoo xam ni bu affaire bi tàngee tàng du fa nekk naan la ana sa barseeg nangam ak naan dañ lay babax mbaa ñu maas la mais boo solee sa gilet dañuy xam baax ne gaynde kii jarte jage parce que c'est la presse kii loo ko laal li ciy xew moo ëpp loolu et puis gis ngeen événement yi fi am yëpp journaliste dañ leen bàyyi et puis yéen ngeen baal ma une partie dañuy yab làmb ñi ci dem yëpp au front bu marché amee wala nangam dañuy sol gilet bu dee làmb nag ngeen di dung ñëw ci suñu kanam bëgg ñoo indil wax ju bari nañ leen ko moytu ngeen baal ma benn entre parenthèse la woon rek maintenant votre vie c'est votre vie hein maintenant le modèle que vous choisirez cela vous incombe hein? mais c'est juste rek benn raju bu ñu leen doon defal ñu xam ni suñu ay rakk ngeen ñenn ñi suñu ay doom lañ ñenn ñi suñu ay jarbaat lañ day jaadu bu ñu amee ndaje yu mel ni ñu fàttali leen xam ni tel minimum dama amoon benn professeur philosophie boo xam ne boo ko mosoon wax ne ko comment faire pour réussir moo ni la il faudra s'armer de garanti intellectuelle xam nga ni loolu c'est une réponse boo xam ni élargie garantie intellectuelle moom mooy demal nga jàngi le minimum boo ko amulee doo dem alaaji xaadim yegg ci jàmm kontaan nañ ci teewaay bi gars yi bëgg naa leen j'espère que on ne sera pas déçu ah. asaw li ngeen ciy gis yëpp. lëns mu ngi ne lee jugal tàllal la seen loxo waaw kii mooy réalisateur u Paf Production. daf ma fi nag dem France ma sonn trop ci tàngoor président Bour vraiment. yàlla yàlla dolli jàmm li ma la mën a wax mooy euh, xam naa ni jamono neexul te metti na si vous voulez bien moi je vais off je vais offrir des gilets pour la presse yi nga xam ni structure yi nga yor man personnellement je vais m'engager tu vas trouver le contenu de chaque regroupement du dëkk mooy dinaa la wutal benn loowu gilet pour ñaari structure yëpp xam nga li ma ci duggee yëpp mooy pour que ñu gën leen a jox cër mais nag pour ñu jox la cër étoile ciel te dara dégg baax il faut que ngeen respecte seen bopp defar seen taxawaay crédibiliser seen bopp du dëgg ba ku leen gis jàkkaarlook yéen jox leen cër loolu nag dafa am ay jalon informel bi war na jeex mën nañ ko def ci ndaje yu mel nii parce que ça ce des rencontres privées vous êtes invités mais quand vous allez en public en tant que presse y a le minimum dëgg président je pense que PAF Production dina la offrir deux lots de gilets que nga garder ko événement yi bu amee yaay dem nga sélectionné ni ñii ñoo war a dem nga jox leen ko après y aura le chargé de logistique qui va récupérer après pour que la prochaine fois vous redonnez à d'autres c'est l'objectif visé c'est vous protéger d'abord vous vous conforter dans votre rôle du dëgg gën leen a jàppale mais itam ngeen gën a jëmmal seen bopp man daal loolu laa leen di ñaan defe naa ni li ci des mooy gërëm la sant la. parce que idée bi ci yow la jóge yaa choisir ndaje bi. choisir heure bi. manil ak bis bi man ma wutal la fu ñu daje. bien que ñenn ñu sax ñu may sànni xeer naan ma kër yëpp yaa ko xam. <laughs> mais yenn grand yi ñoom ay xeer lañu ñu yor. mais man xam nga xeer a ma jig parce que man dama ci dund. man déggoo ma de. man bu ma xëyee te ñu ma waxuñu ma. du baax ci yow du dox. <laughs> dégg baax mais nag yàlla nay doon li baax. déggoo ma de ah. cest dire que coow bi du doon coow bu ñàkk fayda du dëgg nañ leen fexe rek di gën di am ay performance di gën di positif woowuñu leen fii parce que dañu leen ñëw fii pour xeeb ñii wala pour wax nangam ak nangam dañ leen woo. pour ngeen xam ne rek ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi lii mësul am ci làmb tey lay door a am dañ ko waxtaane ak kuréel gi nga xam ne yéen ko fi teg muy président buur ak ñii ne ci ñoom Fadel ak euh, soxna pël bu rafet yow Awa Sow ak yi daal yi donc biñ ko waxtaanee ñu ni nañ leen daje ñu waxtaan bu boobaa kenn du ñu yëgu man nag ci sama yu sew ak sama enquête moo tax ma defar benn liste pour xam ñan laa doon waxtaanal bu ëllëgee lu ci mën a am ma mën a am repérage comme ni ngeen di defee repérage yéen itam dégg leen di gërëm di leen baalu àq di leen baal àq yàlla na yàlla dolli jàmm lii ñu namm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin dafa naa ni mbay yëkkali